ciao na nga def di nga génn ngoon. maa ngi ci jàmm. waaw ci ngoon damay gisante ak benn xale bu jigéen. ah kon yóbbaaleel ay préservatif weer bee jàll maak Khadija demoon nañu ci centre de conseil gynécologue sage femme ñu expliqué ñu ci sëy mën nañ cee wàllante yenn jàngoro lu gën a wóor mooy jëfandikoo préservative te moom mën na see baña a jëlee ëmb. ñaata lay jaar ak wax ma naka lay def ba dem fa. service de conseil pour gen yi ñi am quatorze ans ba vingt quatre ans doo fay ba ci préservative yi ñoom ñoo la koy jox te du la dikkee dara. jërëjëf waaye dama am kersa di wax lu mel noonu. man tamit mën naa ni commencement bi xawoon naa rus waaye ba ma agsee ay ndaw yu bari laa fa fekk ci laa bàyyeeku léegi xam naa ni su ma amee problème am fu may ñëw gis nit yu may dalal ak xamal ñu ma mëna dimbali maa ngi lay xelal nga dem ci situ région Toscana ci page bu ñu jagleel ñu bëgg xam nga xool bërëb bu la gën jege di nga gis heure yu ñuy liggéey ak seen nimero téléphone.